asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bakal saabit ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar wax yàlla di rafet lu taxawaayu daara ji di jéglu tamit géej tàbbi gi waaye ala xaal ñu ngi rafet lu liggéey bu am solo bi nga xam ni al xaqu saabit ñu ngi koy def ci saaxa bi ak ci eh, xadaaya yi nga xamante ni yëpp day xew te yitteel jullit ñëpp ak façon thème yi di traité ak xëy euh, na xew-xew bu nekk rek ñu am te jaaw ak xew-xew bi ba indi ci ay taxawaay ak borom xam-xam yi ci nekk loolu vraiment lu ñuy rafetlu la te euh, lu amal njëriñ euh, nit jullit ñi la rawatina mu tafa yu fay nag ndax participer na bu bëri ci leeral ay lënt yu bëree bëri yoo xamante ni Euh, euh, kuréel gi nga xamante ni naka jekk li ko tax a jóg moo nekkoon indi ay nëx-nëx ak ay lënt ak ak njaxas ak euh, affaiblir l'islam kuréel gi naka jekk loolu ko taxoon mooy kuréel wala xalaat bi di alwahabiya bu man nag am na ay géndiku yu ma bëggoon def rek yoo xamante ni yu mat a bàyyi ko waaw géndiku yi ma bëggoon def rek euh, ci coow li fi am bi fi fa am ma euh, ak euh, xañ na li gën a waral coow li muy téere Ahmed Lo bii di taqdisul asxaas gis nga téere bi d'abord ñi ngi wax téere bi amaana ilmiya mais téere bi mënut a am parce que ñun ñëpp xam nañ ni Arabie Saoudite rawatina jamono boobu pour nga euh, def euh, teesu doctorat hmm, wala nga génn fa ku ne xam na ni doon na ko yobbal lool nga bind xas saaga mu ta sayu fay léegi foof fan la fa amaana ay miyee dugg réew moo xamante ni boo demee ci seen jaamia pour nga benn bind bind ab euh, risaala ah boo xamante ni danañ ko nangu faw nga bind ko wala la lay gën a yombal nga am ko mooy nga def neex xam ne loo def jàpp mu ta fay wala nga jàpp say mu xaalif ñoo wuuteel ah di leen saaga di xas mais foofu fan la fa amaana ay miyee mën jëmmi réew ma ci boppam réew mu Arabie Saoudite fa Ahmed Lo doon jànge fa téere ba ah foofa pour amaana ilmi ya fa dafa dafa dafa dafa jafe puisque al inxilaaxul fikri yi maanaam ñoom dañu tëju ci wàllu xalaat tëju ci wàllu xam-xam ba lépp ra'yi mu xaalif xalaat boobu dafa wute ak ñoom niñ xalaatee niñ gëmee loolu dañ ko jël sànni fële boo boo boo bindee wax ci ñu dul ñoom ay saaga ah ñu gërëm loola nga bind waaw bu dee ñoom ñi nga xamante nag ñoom ñoom ñooy wahabi yi ak fa ñu bokk tey loo mën di bind jëm leen ca loola moom kenn amutoon jur abi sax kon foofa amaanaa ni moom dafay dàqu nga ñëw nag ci téere bi wàllu mën hajiyee beeg yu ni yu ni demee ak rawatina fi amoon te ñoom fi Modou Kama Thiaw ñoom Euh, docteur Khalifa Mbuum ñoom seex Baye mbokk yëpp ñëw nañ ci ci débat boobu fi jaaroon ci diggante euh, docteur Moudou Kama Thiaw ak euh, Omar Mbaye ci masala boobu ci diggante maraaxik talam saani ak jëmmi téere bi yëpp maam li tax ñu war a dàq téere bi man jàpp naa ni jamono bi rek ci téléphone ñëwee Amérique nga xam ni moom moo ni dëppoo nañu kilifa Arabie Saoudite yi léegi yi soppi mën hëj bu bees bi nga xam ne mën hëj bi nga xam ne moo nekkoon Arabie Saoudite mën hëj boobu mooy ban mooy euh, maanaam mëj mën hëj boo xamante ni euh, mooy def li ñuy wax sinaaru tawaxus maanaam day day génne koo xamante ni maanaam daanaka euh, rabu àll buy fàdde ku soxor ku bañ mbokki jullitam ku leen di jàpp di leen rey di leen terroriser ci wax di leen terroriser ci physiquement loolu la daan produire fikra boobu nag nga xam ni Ben salmaan doon nattu wahabiye yi doon takko du ku baax bi ñëwee Rex Tillerson mi nekkoon secrétaire d'état bu Amérique euh, jiite réew mu mag moom nga xam ne mooy réew mi gën mag ci jaam côté Iblis yi euh, dëppoog ñoo xamante ni nee nañu ay julit leen ngir ñu tëgg mën hëj bu weex boo xamante ni bokk na ci lañ ci waroon a njëkk a def ci lañ ci waroon a njëkk def mooy sax bu maanaam génne yenn téere yi hmm, ci njàngaleem réewum Arabie Saoudite ak mbo maanaam mbooleem fu ñu jaaroon yóbbu fa seen euh, fikru wahabi bii téere yi leen doon jox doon ko séddale du leen endoctriné ba nekk ay wahabiyuun yoo xamante ni moo jur tey. ñaari xaraka wala xaraka yi gën a mag ci li ñuy tuddee terrorisme nga xam ne terrorisme boobu ñi ëpp ñi ciy dee ay jullit lañu yuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa muhammadan rasulullah ñi ëpp ñi ciy dee ay abri yàlla yoo xam ci ñu dara ray ga amul fenn fu mën a tegee ci dëgg xalaat boobu américain yooyu ànd ak kilifa Arabie Saoudite ngir ñu génne téere yi man nag jàpp naa ni téere bi ñu waroon a njëkk a saxbu ci makaati bi te Ahmed Lo loolu dong la mënoon def ñu xam ni nit ku honnête la mooy kat demoon na Arabie Saoudite am xalaat bu fa amoon boo xam ne yi teguwutoon ci dëgg xalaat ba xaalis soo ko doon dooleel ak état état ba ko doon financé pour xalaat boobu tasaaroo tey kenn ci waa état boobu ñëw na ngir màbbu fikra boobu ngir xam na ni baaxut xalaat bi baaxul même bi nga koy wóotalit baaxul puisque la James Woolsey waxoon te yàgg ko fee wax ni moom moo ne woon dana leen tegal islaam bi ñu bëgg islaamu wahabiya islaamu noonu lislaam yi la woon muy yahud yi islaam bii nga xam ne moo nekk Arabie Saoudite tayit te Ahmed Lo ba léegi nii ñu nu wucee nga ñëpp ci islaam boobu islaamu noonu lislaam yi la kon mu ni rek su mooy wax mu ni nan jël téere yooyu yëpp sànni ca mbalit ma mais téere boobu loolu waru kii taxriisul asxaar parce tey mooy téere boo xam ne moo fabriqué ay Fadal Ndiaye fabriqué ay Alpha Ba ay ay ay ay ay Omar Sall ay ñoo xamante ni ay junni junni lañ ni lu ni def mooy fekk ñi nga xamante ni dañoo liggéey li ilaayi kalimati laa ilaha illa allah muhammad rasulullah daj ci diine lu mburu dajut ci taal ñii ñàkk seeni bakkan ñii ñu génne leen sori leen ak seenu njaboot ñii ñu bundu xataal leen façon bundu xataal bu nekk ngir lan ngir lislaam ñoom ñii ñëw tey di leen saaga ndax lan ndax téere mën a tax di sul asxaas bal boo demee ci yeneen réew yi parce que benn fikra bi la téere tax di sul asxaas ak yeneen mel tax na nit takk bomb du ci jàkkara ay nit tax di sul asxaas ak yeneen téere yu ni mel yam bokkal xalaat bi tax na nit takk bomb dem ci marché ay tubaab ak ay kii rey leen ci lu tegu fen kon ña tegoon ña ña ña àndoon ak euh, euh, ña sos ak wahabiya ba teg diine yoo xamante ni daal dëppoog ñoom noonu lislaam yi ngir ñu man koo rey euh, tojalante bopp ci diggante julli ñi ñi ñoom ñoo demaat ba indiwaat beneen stratégie bu bees boo xam ne nii benn du ci intérêt l'islam ñu ni nan sax bu téere yooyu ba ci sax iaadatu tafsirul quran bi may nasibul asra xaali fii ni war alquran ci du dëppoog jamono dagg yenn xaalis yi ci buxaari ak muslim téere yi doon jàngale ak violence nga xam ne dafa mujjoon këpp ci seen kaw ñoom ñu ni nan génne téere yooyu téere yooyu nag wuru fee bàyyi tax fi asas moo tax Ahmed Lo bu bëggoon a noppalu day day comme moom euh, ña ko doon financé ñam yaakaaroon ba duggaloon ko ci wahabiya ah ñooñu jël leen téere yooyu ak borom xam-xam yi ko doon théorisé ñii ñu dugal nañ ci kasa bi téere yéen bi ñu jël ko génne ko ci seen mën hëj indi ay téere yu bees ah yoo xamante ni day gërëm loo ah, euh, yahud yi wala tarda ankal yahud wala nasara xata tatbia millatahum ta nga xam ne ci la benn salman di dox léegi li irda al yahud mu jël téeréem boobu boole ko ci téere bi in sax bu daan ne ko amoon tax desul asxaar def déclaration solennelle ne ko amoon tax desul asxaar maa ngi lay ñaan nga delloo sil ma ko bu la mënee la boo ko mënee delloo si ngir yàlla ñu dajale ko lakk ko te nga xam ni taxdiisu asxaaf moom réew mën ko doon bindee ak amaanal ilmiya bii daa jaar penku bii jaar sow beneen bi mooy xadiya bii ñu fi doon wax euh, ci ci biir téere bi ak bi fi fa am ma yow noonu mosutu seere maanaam noonu mosutu seere tey su fekkente ni Ahmed Lo moom ñun ñëpp xam na ni moom daa génn ci tasawuf maanaam ci la juddu mais da cee génn bindu téere boo xamante ni ruuxu téere bi yëpp mooy màbbu tasawuf puisque loolu mooy ruuxu téere bi màbbu tasawuf ak ñu ñu tasawuf mu waxoon ci wàllu manhaj yi am ni day dellu ci cosaani téere yi mu ta fay fay mais nga gis ni day jële ci noonu tasawuf jële ci ñoo docteur xalifam boobu mi ngi koy wax na ibnu saymi nga xam ne ibnu xajar xalaani nee na ibnu taymiya borom xam-xami jamonoom dañ koo tag fi naa ndax d'abord noonu gum noonu woon ahlul bayt dama laa jëlee leen sax euh, loolu mais mawxif bu bon bi mu amoon ci yonente bi ak ñoñam bind ko ak yeneen xalaat yoo xam ne daf ko amoon muy ay xalaat yoo xamante ni ay xalaati mulxiduun lan ci azaliyatul kaw nag ah ak euh, fanaawu janna wannaar loolu boo demee Cheikh Ahmed Misk nga xamne kenn ci talbi fi ñu way nek murtali bind ci ci téré bu mag di fataawa yi mu fi mi daan indi ci yoy yëpp ak li ci ay borom xam-xam wax tak fe ko ibnu taymiya ta bokku na ci delu way Ahmed Lo te sax ci manhaj wàllu maanaam manhajiyatul bahth al ilmi même bu fekke da ngay iqtibaas waxi nit ah citation bokoy def da ngay delu ca waxi ci ja maanaam bu fekkete ne wax ji ci misaal ah euh, waxi cosaan ja xalifa mbuub moo ko wax boo jëli da koy jëli ji ca xalifa mbuub waaye doo fi teggi xalifa mbuub nga dem ci keneen kum jaar wala ñum jaaral ngay jël wax jooja waaw maanaam yow rawatina nag maanaam yow ñi ngay wax ci ñoom muy mu rafay fay nga jëli ci fiinum noonu wala ko ji nii du wax lu baax ci ñoom ak li gën a ñëw nag dooleeti ci xar ne karaw ah ci wax ji bon ji ñu waxal moto fay fay daan ni lu dagan ak lu araam amul ci ñoom ah nga dem euh, euh, maraax yi mi nga wax ak talamsaan yi nga xam ni da nga moo ko euh, dégg ci talamsaan yi ñoom ndeke fekkante woon jamono loolu gaa yi ñëw nañ ci maanaam dafa am yu bëree bëri yoo xamante ni waxuma ci kaa bii rek muy maraax yi ak talamsaan mais dafa am yu bëree bëri yoo xamante ni tax na ñu mën a jël taxdiisul asxaas boole ko ci téere yi nga xamante ni Rex Tillerson ah nga xam si jàngoro égyptien la bokk joxoon na ndigal kilifa Arabie Saoudite moom it mu jële ko ci kilifaam ngir ñu soppi doxalin wu bees ci Arabie Saoudite kon taxdiis asxaas dama bëgg a wax ni waroon naa bokk ci téere yooyu nga xamante ni dañ koy jël sànniwaale ko ca mbalit ma ku ko amoon delloo ko Ahmed Lo waaw boo koy mayaat nga may koo bu lay remboursé mu remboursé la puisque lu téere boo xam ne dafa tagu ci benn amaana alme puisque gis nga li gën a jafe ci bind même booy bind ci sab xasm sab noonu booy bind ci moom au moins sax am na am na am na loo war a sàmmonteel dafa may dawaa bi yoo mi da war a sàmmonteeg moom mën ngaa bind ba yeggal ñu ne ah kii kat lim doon bind doon na ci jéem a sàmmonteeg kemtalaay kàttanam ak maanute waaye yow bind ci ñoo xamante ni ah war nga sag baraa ci ñoom ba pare wëlbati ko dem ci seeni noonu di tegtaloo ci ñoom di def ay uluba yu bon bon ci sa mbind di yokkal euh, ngir def dëgëral say wax yokkal ay nit wax yoo xamante ni waxuñu ko wala nga wàññil leen ay wax ah <laughs> non xam nga neexut ba neexut waaye gis nga al euh, alfikrul wahabi nga xam ne mi ngi ci bidaayatu nihaayam ñu ngi ci seen début de la fin parce que loolu moom lu leer la alfikrul wahabi ñu ngi ci seen début de la fin que ñoo ko taxawaloon ngir ay intérêt muy britannique yi hmm? wala yahuud yi ah ñoom ñoo amaat intérêt ci soppi manhaj boobu ngir tegaat beneen manhaj boo xamante ni boobu du gën a yées xutuura alfikrul wahabi yi atashaddu yi mooy bu bees bi ñu gis Arabie Saoudite nga xam ni léegi tey lépp loo xamante ni fii na sa sallallahu alayhi wasallam indi woon na ko muy lu baax ñu ngi koy détruire ña ca amoon sabaar sax ci fikra bi taxaw di ko contre tey ñu ngi ci kaso bi ñi nga xamante ni moom dund doo nga leen bëgg comme ni ni ni nga ko xamee ci wahabiya ñooña tey ñu ngi taxaw ànd ak benn Salman ci détruire gi muy détruire l'islam te maa ngi taxaddi maa ngi taxaddi ah eh, docteur Ahmed loo yónni woon nañu ko fi ay laaj est-ce que moom ñeme naa taxaw bind wala mu wax ci arab yu leer naññi ci taxyiraat yi am Arabie Saoudite fi Ben Salman jëmee Arabie Saoudite tey nga xam ne du fu baax ngir lislaam du fu baax ngir umma bi ndax Arabie Saoudite mu ñuy mu ñu ñu ñu koy bëgg wala ñu koy bañ fa la yàlla def tey bu dee cim réew fa euh, euh, alxaramayni sharifayni nekk yàq googu ñu ko bëgg yàq nag ànd koog noonu lislaam yi maa ngi wax ñun ñëpp nan maasendoo sàkku ci docteur Ahmed Lo ñii mu binde ci mutasayifa yi jàpp ni li nekk du lu baax ba mu bind ci ñoom téere na ko bind donte ñaari fooy la wala ab euh, déclaration wam fi nii da koy def ngir ñaawlu li Ben Salman di def ci Arabie Saoudite du ko def moo la war a xamal ne kon dañu leelu si ci leen waxoon nii ah euh, gëm-gëmu intérêt la boo xam ne ñi ci suuf mais ku dem ba ci biir danga xam ne ñoom duñu ay nit ñu dëggu ndax bu fekkee ne da ngay da ngay wax ngir lislaam maraamin ku mun karan kay <laughs> yonte bi tax lii du ko ci makaan wala zaman waaw yow ñi nga bind ci ñoom am na ñoo xamante ni euh, mage nan la ñaar téeméeri at ñi mage la juróomi téeméeri at yaa ngi bind ci ñoom di wax ci ñoom lu bon te ci jamono bi bi ngay wax loolu ah, fa jànge di fa jël ay financement euh, nga ñu ñu nga maanaam fa nga soppikoo ba génn ci tasawuf dugg ci alfikrul wahab yi ña nga fay def loo xamante ni day màbbu lépp lu yonte bi indi woon nga taxaw lànk ni doo ci wax te boo mu fit dégg moom docteur borom tax des affaires nii hmm? nga xam ni wax na ci màggal ki gàmmu position bonal ko xalil loo noonu ak mboolem ay mbir yoo xamante ni day xew maa ngi leen di taxaddi maa ngi ñu ngi sàkku ci ñoom ñu defal ñu bayaan bind ko bi luxati arab bi luxati mu mubiin ah, wax ko ñaawlu lee di am Arabie Saoudite kon ñoom fu ñu gis lu bon neen dañ koy ñaawal loolu doo mu sa gis ñu def ko loolu day del siwaat ci rek ci li ñu waxoon nii Arabie Saoudite ku fa jànge di bind ci tasawuf wala ngay bind sax ci ñoom ji duñ mu tax ay saw fa waaye xuloo waale ah wahabiye la mënu ko def ci amaana ilmiya kooku mustahil moo tax téere bi min alifihi yaa yaay yi amul luñ ci mën a wax ni amaana ilmiya la puisque maa ngi koy wax léegi ci ba ci sax booy ixtibaas waxi nit daal tax nga def ko ixtibaas benn nga di ko dëgërale say wax wala nga di ko dàqee bu dee ci cas bii nag ñu waxoon nga xam ne Lo moom moom ak ay ci lañ moom laa musul gis ay mutasayifa yu pratiquer ah ñàkk araamal lii muy wax nii nga xam ni maanaam mutasayifa yi amul lu araam ci ñoom ba baay ak doom mën a jaxasoo mag rakk mën a jaxasoo loolu mu mus koo teg bët waaw koy dégg rek te ci kum ko déggee noonu ay muta ay mutasayifa mais moom gis na lu wuteeg loolu bu fekkoon am na amaana ba mu ko bindee ba pare wax ko mënoon na ci teg beneen commentaire puisque euh, ku tegoon téere bi mën nga cee génne yu bëri yoo xamante nii ah tey foo indi waxi nit am na noo ko wax war a indee sooy def sa commentaire am na noo ko war a defee rawatina nag yow la langa teg ci comme commentaire loola leer na la ni musoo koo gis ak bët musoo fekkee ñu koy def te musoo euh, dégg yow sa jëmmi bopp wala nga liiral wala nga dellu ci benn téere mu tasay fa boo xamante ni tabara la boo xamante ni da nga ca fekk la ngay wax waaye lu da nga ci xoolee noon loolu loolu loolu loolu bu ko ñun li ñuy mujjee moo di ci bu ko li ñuy wax rek bi ci ci di fi faama ci alfikrul wahabi ak ñette bokku ñëpp mooy fikra la boo xamante ni nan xam ni mi ngi ci bidaayatu nihaayam début de la fin yàggatul dara kuy xool di observer danga xam ni al fikrul wahabi ah, mi ngi ci bidaayatu nihaayam bi leen yàlla nattoo am benn salmaan soo xoolee tey incohérence yi nekk ci fikra bi rawatina na ci axdaas yi nga xam ni moo xew léegi nii da ngay gis yu bëree bëri yoo ci mën a jàngate yoo xamante ni ku yeewu de di xalaat di xalam di xam ne ñii dañ lay wax ay caaxaan la su fekkee si ci tawxiid lañ lay woo ñun suñu sëriñ si ni dunde tawxiid ñoom dunde woon ko ni seeni sëriñ dunde woon ko waxuma dund gi mais ñun suñu sëriñ ñi bind ci tawxiid ñoom si ñoom binduñu ko seeni sëriñ binduñu ko suñu sëriñ yi mu bind ci sunna ak ni mu dundee sunna ak ni mu doon dundee alquranul karim ak ni doon dundee islaam maanaam ni doon dundee iman di ko dundee lislaam di ko dundee ihsaan ñoom ñoom ak seeni sëriñ dundewuñ ko ni te yow ngay ñëw di jëfandikoo ay kalimaan maasula di wax ni yow waa sunna nga sunna ngay dund ci jamono booboon nga ñëw noonu waa tasawuf fekk seen yu ñuy def ci gàmm ak màggal nga di ko bonal ba pare yow li ngay woote parce que da ngay ci dégg ñoo xamante ni ñu naan la xew woo xam ne da nga koo woote ngir di ci wut yàlla te yonent bi musu ko def te pourtant dégg ngeen ci dajab Ahmed Lo bi bi bi kalimaat euh, tu sukri yi mu doon def dégg nga muy ñaanal ay nit ñu jàpp ci liggéey bi ah euh, ci ci ci côté organisation côté finance di leen ñaanal ngërëmaandal yàlla ci xew léegi loolu tey boo ko doon naftale xew woo xam ne dañ koo woote ngir ragg derub Ahmed Lo taggal ko ay maamam teggil ko ay tuumaam ah a jàpp mu mën leen a ñaanal ngërëmaandal yàlla ah waaw nu ma def ak na xew woo xam ne dañ koo wooteel gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam muy gàmmu pour wane ay baax-baaxam wane ay jikkoom ngir mu nekk uswa xasana lil umma wala comme fi rasulillah uswatan xasana wala xew woon dañ koo woote xew wa ca tàmbali ba ca cosaan la ci lépp sant yàlla la nga mën koo dàq jumlatan wa tafsilan yow woote fa xew woo xam ni pour yaw la yow yaag sa sa taalibe pour ñu ragg seen der ña ca jàpp nga mën leen a eh, ñaanal yàlla ah ñu daje si ngërmaaneel yàlla ah, ah loolu film moo tax gis nga <laughs> moom daal eh, nit ñi ñoo war a xellu nit ñi ñoo war a yeewu ci al fikrul yi xam ne fikra la boo xamante ni eh, donte ko moom mi ngi doon woo ci biir boo xam état bu Sénégal état bu Sénégal man defe naa defe nañoo conscient ci xutuura bi am ci al fikrul wahabi yi ndax faw ñu xam ko fikr la boo xamante nii maanaam li mu xañ lislaam mu bëri te bokk na ci li mu gën a xañ lislaam moom al fikrul wahabi yi wala al wahabiya mooy daane bi ñu daane doole ji lislaam amoon nga xam ni tey bu fekkonte ni jamono bii ba tey doole jooju xilaafa googu mi ngi am kon julli ñi euh, du ñu gas du ñu yonjax du ñu yambare ni ñu yambaree te ñi gën a joué pour pour daane xilaafa islam yi bokk na ci euh, wahabiyun yi bi bi ni bi bokk ci mu amara bi britannique yi doon def yahud yi doon def ah li xaatil xilaafal islamiyé ñoom joué nañ ci bu mag a mag muy fikra boo xam li mu xañ lislaam dafa bëri ci lan ci xewlu ci xewul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci ñin koy woyafale nga xam ni lolu gaay bi dinañ ci téré al wahaab yu laay waqiroon nabi salaay salaam maam ni ni doye doyadale yoonte bi ñin koy suufeele dégg nga sax waam di ni xaleel nga dégg mu naan manam di maanaam bëgg a muhammad Ibn abdullah ak muhammad Rasulullah mais muhammad Ibn abdullah moy muhammad Rasulullah muhammad Rasulullah moy muhammad Ibn abdullah manam ko la séparation bu bon bobu ay atiu llah tu rasul mais bo wax baati séeréer la wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah muhammad ngay wax de kuy muhammad muhammad ibn abdullah moy muhammad rasulullah muhammad rasulullah moy muhammad ibn abdullah te de ngeen xaliloo doon jema a entre muhammad rasulullah muhammad ibn abdullah kon bokku na ci bonok al fikru wahabi xagn gi ñu xagn ñu xewul ci xéewlu yonte bi alayhi wasallam bokku na ci bonok wahabi yi xagn gi ñu xagn benno gi waron am ci ci jullit ñi nga xamni bi ñewé ño tax ci gëna tax ci umma bi gëna participer ci tax ci umma bi nga xamni tay bo xolé umma bi yépp lim dund ci ak rayanté ci ak di konte tubaab bi ñu ko jëlee ci alfikrul wahabi yi di def khatul arab bil arab wal muslimin bil muslimin tafsiqul muslimin bil muslimin tabdiul muslimin bil muslimin yooyu ñu ngi ko jëlee ci alfikru wuxaabi tey war nañoo def ay filfilaat ci xalaat bii du xalaatu wuxaabiya li mu xañ lislaam lor gi ko indil bokk na ci ñu nekk ay jullit yu jàmbar yoo xamante ni dañuy topp ci ginnaaw noonu lislaam yi tey maa ngi wax nañu teg balance ci li musa fay fay liggéey ci lislaam ak ñi amee fikku waxa bi li liggéey ci lislaam nan ko teg ci balance foo dem ci xaaraat yi pendant ay siècle muta fay fay ñoo fa dëgëral lislaam ba ci ñoom ñi tey bu ñu nekk ay jullit ndax bi fi tubaab yi ñëwee bëgg a tër lislaam ren bi doon xeex ak yi ñoo ñay muta ñoom buñ jotee tey ci lislaam bay am lislaam bu ni mbubboo islaam sunni nangam nangam ah tey mu tafay fayee tax partout ci Afrique nga dem ci Asie boo demee ci wàllu xam-xam yi li ci mu tafay fay liggéey kuy mbubboo wahaabiyee liggéeyoo ko ci wàllu boo jël nag kon ñoom na xel gën a dal ci ni ñoom ñi ngi ci seen bidaayatu nihaaya seen début de fin moo tax munazaraat yi ñuy woote dafa mën a leeral lu bëree bëri te ñoom dañ koy daw mais ñu nangu munazara ak ñu bañ ko ñii leeral nañ gën a continuer di leeral tamay ñaan tamay ñaan mu nekk lu gën a organisé bu nekk di répliquer maanaam di répliquer rek ñoom wax nañu génn wax déedéet mbooleem boroom xam-xam yi mu ta fayi fayi nañu def ay séminaire nañu gën a décortiquer stratégie bi wahabi yu ñuy wax parce que ci stratégie lay dox ndax euh, jamono yu ko seetloo ñoom ñi ngi dox ci li ak tanfiir ak tabfiir doon dox maanaam église catholique méthode bi mu doon doxee ci fekk ay nit ci àll yi nga xam ne dañoo sonn xiif mar nga dem fa di leen jox ñu lekk di leen jox ñu naan di leen faj pour lan pour dugal leen ci an nasaraaniya wahabi yi ñu ngi ko def léegi ñu ngi dugg ci dëkk yi naan dañuy faj nit ñi naan dañ leen di jox ñu lekk dañ leen jox ñu naan déedéet dañ leen a bëgg a endoctriner ci alfikrul wahabi loolu na ko mu ta say fay décortiquer naam ñoo leen jiitu woon ci terrain bi mu ne leen ci gën a jiitu ne leen ci gën a jiitu ndax gi ni ndax gis nañ ko ci xew xew yi bëri nay mu ta say dañoo yew woddiku tàbbi nañ ci peesu bi leen bi leen dëgg sërëx gi leen tegaloon ñun bu fekkee dañoo bëgg toog ba léegi docteur Ahmed Lo naa ñu Sëñ Tuubaa ci sunna la ne woon may yow kii nag ñun kañ naan xamoon ni Sëñ Tuubaa ci alxuraan sunna la ne woon loolu dañoo soxla docteur Ahmed Lo di ko wax ba nga gis mu rafet yoo xam ne da ngay gis ñu koy kii naan ah docteur nee na Sëñ Tuubaa ci loolu soxlawul mu ñu koy wax wala gis koo xamante nii même bokk parce que bu nan yeewu gis na mu safre xoon yi orientaliste yi ak yahud yi bëri na tey ay imaam ay kilifa diine ñoo leen gën a mokkal alquran ñoo leen gën a mokkal ahadis ñoo leen gën a xam histoire l'islam mais ñoom dañu tey buñ koy wax dañ koy dëgërale seen xalaat ba wuuteeg l'islam te ñoom ñi tamit ñi amee ak fikru wahab yi saa yoo déggee ñu nag ñuy tudd Sëriñ Tuubaa wala ñuy tudd maam alaaji Malick wala alaaji Ablaye Niass wala Cheikh Ibrahima Niass tudd ñu ko ngir dëgërale ñoom waaye dañ koy dëgërale seen xalaat mu doon ay nax motax lolou loolu ko jël tek fële ñun ñoo gëna xamni xam ne ci alcorane sunna la ne ñoo gëna xamni xam ma ci alcorane sunna la ne ñoo gëna xamni sun mag ci mag ci alcorane sunna la ne soxla wuñ ab wahabi buy dëkk dañu ko waxal soxla wuñ ko xam nañ ko bu yagg xam nañ ni mutasayfay liñ dacc ci alcorane sunna nga gis te ñu daan nafila téeméeri rakka di xatmu alquran ci ñaar rakka te ñoom ñi duñu ko def gis ci ñoom àggoon nañ ci ragal yàlla fépp dugub ah yàgg ko ki koo xam ne ci ñi Sëriñ Tuubaa yar la fépp dugub mu jënde ko mu mu mu doon ko waxaale jënd ko jóge Gosaas dem ba xombal dëppaat ngir delloo ko ragal yàlla googu fan la nekk ci gaa yi te gaa yi ñun fii xamante nañ ñoo dëkk ragal yàlla googu néew ci ñu bari ci ñoom sàmm googu néew ñu bëri ci ñoom te yooyu ci mu rafet nga koy fekk ci mu rasay fay ngay fekk ño xamanteni dañuy am ay pak yu mën jar téeméeri million ñaar téeméeri million ñu ñu ñu def ko jàkka royé ko sun mag bàyyi diine ya muy sahaba yi ci ñun ngay fekk ñuy infaq ay malayin ay milliards ci ro xamni day nek maslahatul ibad wal bilad di def ay université di def ay juma di def ay hôpital te soxlawul financement benn benn réew moo tax nax googu nañ ci yeewu comme ni nga xamante ni orientaliste yi bu ñuy wax alquran waxuñu ko ngir ne di ñoom la gëm alquran mais dañ ko wax ngir dëgëral ngir détruire ko ngir dëgëral ko seen i pas-pas waajee yéen bu ñuy wax ci Sëriñ Tuubaa parce que ñoom man li ma xam kii kii woon si ñoom bu njëkk am na ci ñaari parti ci waajee yi ñoo xam ci ni ñoom dañ ni woon ah mag ñi ko seen wax yi duñ ko jël jumlatan wa tafsilan am ñoom yi dañ ah war nañ ci mën a sukkandiku kat comme dañuy sukkandiku sax ay waxee borom xam-xam yi Inde ak borom wax waxee Pakistan ak yooyu ñoon lan xaajo woon gis naa ci ñoo xam ne sax bu njëkk ñoom daanan tegtaloo ci waxi sun mag ñi ah xawoon am ak kii tuuti waaye léegi ñoom ñu gën a tasaddu ñi te gënoon a tasaddu nga xam ne dund loo nga leen bëggoon gis na ci seen bëgg dund googu léegi ñuy commencé di ci di wax yoo xamante ni gëmuñu si dara mais yooyu buñ ci nax buñ ci buñ ci woru buñ ci woru maa ngi jégalu nag ci wax ju gudd ji mais daal euh, marda wax ji yëpp moo nekkoon mooy woote jëm ci yan taxawaay lañ war a am en tant que ay jullit yu bokk ci maanaam yoo xam ci ne ay mutasawi falan muy pàcc ci lislaam comme iman bi tawxid wal islaam bil fiq wal ihsan bi tasawuf ñu mën a taxaw d'abord gën a leeral lu wér li nga xamante ni moom la suñu mag ñi woote woon benn ñaareel ba mooy lépp luy daxiil ci njàngale moomu ñu sos ko parce que am na de toujours nag waxaabee yi duñ def différence diggante tasawuf ak mutafawif bi ñoom dañuy jël li mutasawifa yi def yëpp ñu ñu ñu ñu mooy tasawuf déedéet mi ngi mel ne rek li tubaab yi def ah digg lislaam di bi indi ak julli ñi lu ab julli def ñu ne lislaam la déedéet lislaam moom lépp wér waaw lépp wér am na nag lu ay mutasawifa yi def te wérut waaw comme ni mu amee ay julli yoo am ci nii am na lu ñuy def loo am ci nii du lislaam wérut loolu dafa mat a différencier noonu tasawuf yi da dañuy jël lépp lu am tasawuf fa def ak tasawuf ñu jël ko dugal ko ci benn salla dàq ko jumlatan wa tafsilan da ngay dégg sax boo ñëwee waxi daf yi ne wax ci sumbee bi nga naan ñu naan waaw mu tasawuf fay ñoom ngay ñoom ñooy tëj ci kasa bi ñooy way ñooy mais loolu c'est loolu c'est naturel puisque ñoom ñooy axlabiya bi boo demee Iran ñëpp ñooy def la bon ay chian la ndax chian yi ñooy axlabiya bi boo demee Arabie ñu nekk ci kasa bi ay wahabi la ndax ñoom ñoo fa soo demee fii ñi ëpp ñu ni boo ñëwee Sénégal ñi ëpp ñu fi def euh, ñoom comme ni ñu koy waxee wane ni ñoom ñoo ñu sell ñi ñooy dañuy tas kay seen bopp ñi ëpp ñu def lu bon ay motafa yu falan puisque motafa yi ñooy majorité yi mais ñi ëpp ñu fi def lu baax ay motafa yu falan loolu bu ko fàtte ñi ëpp ñuy def lu baax ci réew mi ay motafa yu falan ñi dàq tabax jàkka ñi ta euh, ak juma ñi ta dàq infaq fi sabilillah ñi dàq euh, ci histoire Sénégal ñi dàqoon a julli ah dàqa woor dàqa natt azaka ah dàqa dem Makka ah, dàqa liggéey loo xam ne ma ibaad wal ay moto fayee xolan loolu buñ ko fàtte waaw kon nan gën a euh, yokkaat taxawaay yi ci gën a leeralaat dëggi dëggi tasawuf dàq ci lépp loo xam ne dañ ko ci raxta bokk ci ndax am na ci waaye nag jàmmaarloog wahaabiye yi ci xam-xam laa wax ah te xam ni euh, euh, comme ñoom ñu ngi seen début de la fin ah ñu def li ñuy opération doggale rek comme ni ñu waaye lépp na tegu ci xam-xam ah tegu ci amaana euh, tegu ci am xel stratégie buñ teg ñu jëm ko décorté ngir jàmmaarloog ñoom loolu buñ ko defee alfikul wahabi moom léebag lupp lay doon asalaamaaleykum wa rahmatullah